sant yàlla bu baax bi mu ñu mayee ñu ñëw fii ay yoon yoon ren ñu ñëwaat fii ci anam bu bees nga xam ne nag moom mooy suma naataangoo le ministre bi nga xam ne moom lañ dénk cadre de vie ci yéeneem ci xam li li ñu wax li ñuy wax solidarité gouvernementale dafa dajale ay moyens yu bari UCG bi lim na ko léegi ñu boole ci sunu asak yéene ñu ñëw jébbale ko pour que liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def avant pendant et après màggal gi liggéey boobu mën a jaar yoon ñoo ngi sant yàlla bu baax maa ngi koy sant bi ko gërëm waaye yéene moo ëpp solo jëf te ñun ñëpp xam nañ ne président de la république ci Touba jaar ci ñaari ale yi gis liñ fa jëmbët ci ay kokkuce te tuuba nekk dëkk boo xam ne ñu bari walla ñépp fi ñëw loolu buñ ko gisee sëñ bi dañ koy rafetlu jaajëfal leen xam naa ni liggéey bi nga xam ne moom lañu président de la république sant muy Sénégal nekk vert Sénégal gën a naat Sénégal gën a set yéen a ngi ci yéen a ngi ci guddi yéen a ngi ci bëccëg loolu nag témoignage boobu war nañ ko fi wax di ñaan également ñi nga xam ne ñoom ñooy sunu mbokk senegale yi nettoyer baax na waaye ñàkk tilimal moo ko gën ñu góor-góorlu bu baax ci jëmbatum garab ñu góor-góorlu bu baax ci setal sunu dëkkuwaay sëñ bi loolu laa bëggoon a jottali ci tur bi nga xam ne wax naa ko sànq ñi ma àndal di yeesal suñu nja suñu ziyaara bu baax. ne ngeen yegg ci sëriñ bi ndax Cheikh Mamadul Muntaxa mooy borom liggéey bi te li ngeen def ci dëkk bi rek ne moom moo tax ngeen di ko def. ne kon mi ngi yónnee nuyoo ab ministre Abdou Karim Sall di ko teg ci loxoom ne yaa ngi ministre yi nga àndal yépp am na fi ñaar yoo xam ne nag daaw ba ren ñi fi ñëw bari na lool ci kilifa yi ci sëñ bi sëñ bi di ko boole ñoom loola nag duñ ci jéggiwaat di dem ci président xam naa yegsi na ci yow waaye nag ña fa nekk tumuranke nañu lool fi mu ne mooy ci wàllu ñu daa dagg matt fii ci àll bi ci ay côté yéen nag yéen a xam la tax ngeen koy tëj ak la tax ngeen koy ubbi ndax loolu day mbirum technique waaye nag ndax koo ci déglu rek day mel ne mooy nekk ci dëgg kon nag yeeyonte taxul ñu di ko wax waaye ngeen gën ko bàyyi xel lépp loo xam ni lu ci mën a am la te du yàq environnement réew mi loolu ngeen dimbali ci nit ñi ndax ñi néew doole kat ñoo ma a gën a mat a dimbali ba ca desit ba ca desit ñi doon liggéey ci mbirum ndox mi loolu xam nañ la ca ne ndax am na loo ko ci leeraloon daaw ci benn mbuus bu ñu ko bàyyee fenn lan mën a yàq kon loola mënuñu caa sori waaye nag ngeen waxtaan ci seen biir ndax xay na yéen a ngi sax waaye faw ñu fàtt leen ko ndax ay junniy nit bu ñu amee jaaxle ñëw wax la ko te yaakaar la ca boo ko jottaliwut la nga war a def defoo ko kon sa mission da dul mat kon ñaar yooyu moom faaw ñu leen koy fàttali ginnaaw bu ñu leen santee ba noppi ci jëf ji ngeen jëf nag ak jëf ya ko jiitu di ñaan yàlla ci barkeb Sëriñ Tuubaa suñu borom dimbali leen ba mission bi ngeen bëgg ci réew mi lépp yàlla kàttanal leen ko ba ngeen eggale